espoir. parce que mais mais Bachir bala ngay continuer. Ah. nan ngay gisee. Uh-huh. Euh, ces ces ces anciens ministres. Mm-hmm. du de de Macky Sall. Mm-hmm. bëgg a nekk candidat. Mm-hmm. commencer di toucher là où le bas blesse. Euh, ah, comme si ñoom dañu nekkoon euh, un peu un peu amnésique wala. wala wala wala amuñu woon pouvoir de décision. waaw xam nga xam nga lu ñuy wax. d'un seul coup rek ñu commencé di ñu wax lan mooy solution yi. xam nga lu ñu wax le syndrome Landing Savané. Hmm. ils sont victimes du syndrome Landing Savané. c'est-à-dire. Hmm. Landing Savané dafa nekk ci nguur gi ak ab Ablaye Wade. de 2000 à 2007. élection présidentielle jot. mu nekk ministre de l'industrie mu ne il est candidat contre Ablaye Wade. Hmm. xam nga ndax yéen a ngi koy fàttali. effectivement mu dem di meeting mu traité les libéraux de voleurs. Hmm. waaw. ñu ne ko yow noo mën a ne ñii ay sàcc lañ te nga ànd ak ñoom. te nga ànd ak mu ne leen on peut être avec des voleurs sans être voleur. <laughs> xam nga loolu mooy l'inconséquence et l'imposture des fois dans certaines positions yooyu dégg nii parce que li ngay wax nii doo ma ne gisoo ko woon démb. Mm-hmm. suñu classe gi buñ ko waxoon nga ne ñii ay opposants lañu. Mm-hmm. kon nag lu tax léegi yow la nga doon noppi démb nga taxaw ba ko wax tey. parce que parce que tu veux plaire à je serai quelqu'un qui est membre de cette coalition ba génn taxaw teg ki wam nu mu tuddati euh, ber langam j'assume ce que j'ai fait je défends ce que j'ai fait et maintenant je suis dans une posture de correction parce que rien n'est parfait mm. et c'est là où moi j'apprécie le discours de Mohamed Boun Abdallah Dionne mm. il dit nous sommes dans la correction mm. nous sommes dans le réajustement waxul ni baaxul dafa ne lu fi am na lu ñu war a def am na lu ñu war a yokk am na lu ñu war a dàbbali am na lu ñu war a changer.